Euh, jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs euh, Médias mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fes ñañu jàpp ni dañu xatal centre commerciale bu Dior jëlee nañ leen fa ñoom ñooy nag naqarlu lu ni mel ñooñ kañu ca teg baaramu tuuma nag di mairie ba ndax dañu wax ni mairie bi daal yëgalu leen benn yoon ne dañoo war a euh, jóge ci yooyee barab mairie bi nag ci boppam daal di weddi lu ni mel te nag ne fas yéenewul dellu gannaaw benn yoon lu ni mel tàttee jaaykatu taabal ya ñoom it jëlee nañu leen fa ñoom jaaykat yooyee wax nag ne dara sababu ko lu dul ndajeb francophonie bi ñu war a amal fii ci euh, Ndakaaru loolee nag mooy euh, li leen euh, metti waaye tamit la leen metti mooy dañu jàpp ni maire ba nga xamante ne moo nekk kon ca diwaan boobee moo jëfewul yoon ndax yëgalu leen ne dañu faa war a jóge maire ba nag weddi yooyee tuuma ndax nee na lu ëpp ñetti weer a ngi nii mi ngi sàkku ci ñoom ngir ñu jóge ca barab yooyee jaaykat yooyee kay ñoom ñoo dëgër bopp leneen ñeel nag kuréel gi nga xamante ne nii moom moo ëmb euh, ñi euh, laago maanaam ñi nga xamante ne dañu silmaxa euh, seen bët muuru ñoom nag dañoo mere ba futtu premier ministre bi ndax dañu gis ni daal boolewu leen ci discours bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ci déclaration de politique générale ñoom kuréel googee di convergence bi nga xamante ne moom moo ëmb ñu tey ñu ngi doon amal seen ñaareelu congrès la leen metti nag bokk na ci ñàkkum xëy bi ñu nemmeeku ci silmaxa yi waaye tamit seen doom yi ñi nga xamante ne sax seen bët dafa muuru ñooñu it dañu gis ni seen njàng dafay tagga témbe euh, te lu ci bari nag duñ leen a jàppale leneen ci ponk xibaar yi nag ñeel syndicat yi ëmb jàngalekat yi euh, tolluwaay bi ci Sénégal bari na ba jéggi dayoo ña ngay sànnante bal nag ñenn ci syndicaliste yi euh, gis ni politiciens yi ñoo nekk ca gannaaw loole ña ca des nag gis leneen la ñu wax rek moom mooy syndicaliste yi nga xamante ne dañu fay nekkal seen bopp loolee lu ñu ñaawlu la dossier tey jii wàllu wér-gu-yaram la ñu ko jagleel ak li ñu duppee énurésie ngi dal mag ñi nga xamante ne nii euh, dañuy tuur ndox euh, ci kaw lal tuur ndox guddi loole nag mu nekk loo xamante ne léeg-léeg euh, dina tax seen nekk nag askan wi di jafe waaye tamit dina leen indil gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram tàggat yaram daanu àddu ci Qatar mi nga xamante ne noppi na ngir dalal Coupe d'Afrique de Nations bu 2015 loole nag ci kaw kaaf sàkk ko ko lii nag di Qatar nañ jàpp rek ne kon noppi na ci loole ndax moom sax mi ngi doon weddi tuuma yi nga xamante ne ñu ngi ko doon teg ci kawam waaye tey ji leeral na yëpp waaye nag lu jëm ci Maroc mi nga xamante ne dafa rocc loxoom ci organisation boobee ay daan fekk na ko ci ndax équipe am dañu ko disqualifié mbokki xarit yi ponk yaa ngi ni yaatal geek faram-fàcc ci Guinness tuut lay doon. Euh, jaa ngeen jëf euh, ci ànd beeg télévision Futurs euh, Médias ni ma ko waxee ci ponk xibaar yi dañuy dem ba fële rond-point Gueule foofu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo jaaykatu table ya nañu ci ñoom ñu jugee ci barab yooye ñoom jaaykat yooye nag gis ni dara warawul ko lu dul ndajëb francophonie bi ñu jàpp amal fii ci Ndakaaru te bu loolu weesoo nag daañu delluwaat ci barab yooye mere nañ nag maire ba fa nekk ndax dañu gis ni maire ba daal yëgalu leen benn yoon ne dañoo waroon jugee ca yooye barab Pape Fara ñi ngi Yunus Diatta ñiy lal taabal bëgguñu leen gis ci diggante sumba jun ak kolobaan naam sax bu dee bërëb boobu saa su ne soo ñëwee fekk fa ay jaaykat rawatina jaaykatu luuma yi li nu mel nag indil jafe-jafe borom taabal yi. ñu tàmmoon liggéeyee ñu ñëw yëkkati ñu fi yëkkati boo xam ne tam yëkkati bu bette la. mooy li ma bëggoon mooy ñu bàyyi ñun ñi daan seen doole liggéey ndax ñun ñi amuñu leen lu ñu def lu dul liggéey. ñoom ñu jàpp ne organisation quinzième sommet de la francophonie bi moo tax rek ñu bëgg leen fee jëlee. loolu moom dañuy ñëw rek jékki-jékki rek ñu ramasser ni ay vingt deux euh, euh, deux heures du matin ñëw ni ramasser suñu table yi rek amuñu laal la quoi am na ñëw ne na affaire ah, francophonie yi lool moo tax gars ñëw fii nii di di waaw. jaaykatu taabal yi nee nañ li ñuy ñaawlu rek moo nekk nañ leen jëlee ca bërëb boobu te bàyyi ñu sax ba àpp bañ leen jox mu jeex. joxoon nañ ñu sommation d'accord mais sommation bi date biñ ci defoon ñoom respecté wuñu ko. par la suite ci lañ ko jàpp ne ñoom dañ koy def guddi lañ ko def ci loo xam ne ñun bett nañu en fait bagage yi fa defoon yëpp ñu yàq ko loolu itam bi mu amee dem nañ ci mairie bi ci at premier adjoint au maire jege ko wax ak moom mu xamal ñu ne loolu ñoom loolu dañ ko programme woon ba pare déjà mënuñ ko woon bañ a def. ay fan ngi nag ñoom danoo toog jaayuñu moo tax nag ñu naan ñoom fa yéene ñoom banque seen loxo di ñaan nag ñu defaraat marché bi ba ñu mun fee dellu si waat ñu am déggug ñii di mairie Fass Colobane Gueule Tapée ngir ñu mën a yeggali seen jaay. Euh, Pape Fara Ñing euh, maire bu Fass Colobane Gueule Tapée weddina tuuma yooyu nga xamante ni teg nañu ko ci kawam moom nag nee na wax na leen lu ëpp ñetti weer a ngi nii ni ñu jóge euh, ci barab yooye waaye nag jaaykat yooye ñoom ñoo dëgër bopp kii nag di Ousmane ndoy ne nag dafa sax projet boo xamante ni dañu ko teg ngir gën a daal di rafetal xar kanamu Gueule Tapée rawatina ak yoon wa nga xamante ni kon moom moo jógee Gueule Tapée jàpp monument ndax sax dañu ko bëgg tabax ab boulevard duppee ko Mame Abdoul Aziz ñu teewlu ay kàddoom ak Pape Sara Gningue. canal bi mu leen teg kanaal bu ubbeeku la woon dañ ko tëj dañ ko tëjee léegi yàgg na fi mu nekk ni sécurité amu fa parce que am na ay palace yoo xam ni dafa dafa rës ñu woo leen ci njëkk jox leen sommation di leen jóge leen fii dañ koy nettoyer te fii dañ fi soxla projet te comme ñun nag population yi dañu fi teg pour loolu te sant ñu ko ñu wax ak ñoom pour ñu jóge fi rek ñu bañ jóge ñu jëlee leen fii bu leen fi jëlee nag somme nañ leen yëgal nañ leen

ñanam seen i bagages it euh, bokk na ca ñu jàpp ñu jàpp ni dañuy xatal centre commercial bu Dior ñooñu nag euh, jëlee nañu leen fa mere nañ ba futt nag euh, maire ba fa nekk ndax dañu jàppee tamit ne maire ba yëgalu leen lu ni mel waaye nag maire bi it jëmmi boppam nee na fas yéene wu ñu dellu gannaaw lu toll ni bën bënu puso ndax seen liggéey daañu ko def ba mu mat sëkk Maymuna Njaay Thierno Laurent Mendy jaaykat yi féete ci centre commercial bu joor am mbetteel lool tey ci suba bi ñu gisee ñi fare ci mairie bu Parcelles Assainies di leen yamaleel seen place fi mu war a yam ñu ne teguwul fenn ba tax ñu bari tëj seen i bunt. ñu yebal fi ay mbër ak ay affaire yooyu ñu ñëw di dajji di dajji naan décombrement la ñuy wax di dajji mais décombrement su amee sax da nga naan nit ñi ah dugal leen seen bagage nga leen dugal leen sa wala nga affecté leen mais defoo ci dara xoola ay booy yu ndaw ay booy yu mbër di di ma song di dagg samay yére. di xeex ak man en tant que même bu dul loolu sax ñu am respect ci diggante suñu diggante ak ñoom problème bi du problème dara lu dul su fekkee ñoom dañoo am décomptement nañ ñëw waxtaan ak borom place bi ne dugal. amoon sax ci ñoom ñu wàcc ci tali bi daal di taal ay pneu ñu ne nag mënuñoo def seen liggéey ni mu waree te bañu ci dara. sommation yi lañ mës a wax ci marché bi mooy bâche yi nekk fële ci kaw tali bi noonu la ñu waxoon dañ koy génne parce que dañuy peinture ci kaw dañuy peinture côté boobu sommation yooyu moo mës a ñëw bi mooy sommation yi nga xam nekk ci kaw tali te bi mu ñëwee ci marché bi ñoo ñu jot nañ ko waxtaan nañoo ak ñoom mais leneen amu fi. bañ ci dara actuellement nii parce que actuellement nii il faut ñu toog ñun suñu biir waxtaan xool laka la ñuy doxal parce que lii moom dootu ci ko nangu muy am. maire bu Parcelles Assainies ne li mu bëgg leer naa xanaa kay liggéeykat yi ñoo ci teg seen tànk. ñun lu ñu def mooy dindi li nekk ci mbenn mi ñëw naa fi ñetti weer avant élection yi bi ñu élection ak léegi mat na juróomi weer ñëwaat naa fi dox ak sama tànk waxtaan ak ñoom wax naa leen. man dama leen ko yàgg wax bañ naa ba sax élection bu ñu ñëw naan may élection man leen déedéet dama leen ku nekk na dem votel ka neex mais man sama liggéey dama koy def beneen bi borom cantine nga xam ne mooy commerce centre commercial Dior nga xam nañ fa ñun am nañ fa fukki million xam ne ñu ngi ñu ko amel ñetti at a ngi ni fayuñu ko sonnaluñ leen ci indiwuñu alkaat tëj seen cantine tëj seen place defuñu ko fii à part bi nga xam ne impôt moo koy def ñëw fi ñun ak ñoom du ko def amul kenn ku ñu sonal ci ay fayal wala bul fay sonnaluñu kenn ci ah mais mbedd bi ñun ñee ko moom boo luwee cantine mënoo jël li ëpp ci bagage ëpp li nekk ci biir cantine bi nga danga koy teg ci mbedd mi. liggéey bi mairie bu Parcelles Assainies daal di sumb nag nee nañu du fi yam ndax dinañu ko woyal ci gox bi yëpp. ma Maimouna Ndiaye waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi lu jëm ci organisation syndicale yi euh, ku ne organisation syndicale nag wax ci wàllu permanent waaye permanent euh, luy permanent ci jëmmi boppam lu mu ci mën a doon nag Mamadou Lamine Diante ak Mamadou Cissé ñoom jàpp nañu nag ne ñii di permanent yi ñu am solo lañ tey tamit ñu ngi def lu am solo ci li nga xamante ne rek moom mooy euh, barabu liggéeykaay muy nag ci privé bi ak ci public yi waaye tamit léeg-léeg dañu gis ni seen liggéey dinañ faral di jànkonteel jafe-jafe yu taray surtout pay Fall Mouhamed Dia permanent wala permanent syndical ñaari kàllaama yépp daanaka benn la permanent bi moom bureaucrate la fonctionnaire la waaye nag dañu ko wàcceel ay activité wam ci liggéeyam laaj bi nag mooy lu permanent ti jëriñ ci organisation syndicale permanent bi d'abord jàngalekat la donc mook yeneen jàngalekat yi ñoo bokk droit c'était avec Iba Der il a senti dafa yëgoon ne am na problème mu enseignant yoo xam ne dañuy taxawaalu euh, ça traîne alors mu jël euh, ay euh, nit ci jàngalekat yi ci jàngalekat yi mu jël ci yóbbu leen ministère des finances. léegi moom devoir am moom mooy que ni saa bu xëyee mu dem ci siège bi mu xool dossiers yi nga xam ne moom moo fa nekk wala dossiers yi nga xam ne moom la war a suivre mu jóg dem ci ministère yi continuer koo toppatoo boole ci nag ay réunion ay négociation yi mu war a am. ak gouvernement bi. ñoom nag dañu yëngatu ci privé ak public bi waaye doxalin bi wute na. boo nekkee responsable syndical euh, liggéey bi nga war a def ci entreprise bi euh, munatoo ko def ba tax na donc doo ci am payoor mais sa syndicat mooy jël en charge sa salaire. boo nekkee permanence syndical enseignant yow sa salaire u enseignant bi da koy da nga koy garde euh, nga koy garder mais syndicat bi amul droit. fay la salaire. boobu ba léegi seen statut ngi évoluer nànk-nànk liggéey bu baax bi ñuy def ci seeni organisation tax na ba léegi seen ay liggéey a ngi wëy. bu Macky Sall jëlee nguur gi euh, ministre euh, Mansour Sy bëggoon na dellusiwaat ci statu permanent syndical mais bu mu demee ba ci biir. Euh, dafa dellu ginnaaw parce que xam na ne en réalité yoon bu mu bëgg a jël du boobu parce que en réalité permanence syndicale dafa am solo boo xam ne nit ñi dañ ko war a xoolaat ci yeneen ak yeneen bët. permanent yooyu lee li ñu leen di ràññee te ñu koy jëfee bokk na ci coordination revendication prise en charge ak négociation loolu tax ba léegi seen taxawaay am solo. Aïssatou Paye Fall ñi di la jaajëfal wax it ba tey ci li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu kon euh, kuréel yi ëmb syndicat jàngalekat yi ci Sénégal bari na ba jeggi dayoo ñoom nag euh, ci seen biir ñu ngi euh, sànnante bal ñenn nag ci syndicaliste yi ku ci mel ni Mamadou Ndoye bu CUSEMS moom dafa jàpp rek ni politiciens yi ñoo nekk ci gannaaw kii nag di Youssou Touré moom la mu ñaaw lu mooy doxalinu ñenn ci syndicat yi ndax dafa jàpp ni ñu ci bari seen bopp képp la ñu fi nekkal Bintu Loum Adama Gueye ñu seetlu bëri waaye gu mouvement syndical yi bëri fi mu toll nii ci secteuru njàng mi ci Sénégal tasaaroo gi am ci syndicat yi kii di secrétaire général bukki bu si ne politiciens yi ñoo ko waral. politiciens yi ñoo indi loolu lépp ñoo dugg ci biir syndicat yi féewale leen ñaareel bi également mooy lu ñuy wax coo jëlee ci yoon parce que pour créer syndicat laajul autorisation. Youssou Touré ne bëriwaayu syndicat yi li ko waral mooy ne ku nekk sa intérêt bopp nga ciy ut. ñu fi nekkoon ñi ñoo ko def ministre bu nekk créé sa syndicat ku jóg créé syndicat ñaari nit ñetti nit ne syndicat lañ bu ñu créé seen syndicat ñu génne leen classe yi ñuy taxawaalu comprendre nga euh, am jëwriñ yu fi nekkoon di leen woo am lu mu leen di jox di maye oto fii ay extra extra donc loolu dafa yomb. dëkk bu tuutee ni Sénégal am lu mot presque juróom fukki syndicat mais xam nga ne loolu moom la tubaab di wax anarchie. syndicaliste yi ne fi mu toll nii nag jot nañu jéem a wàññi mouvement syndical yi tax sax ñuy laaj ay élection de représentativité. état bi dafa war a def ay jongante parce que syndicat c'est normal mais boo defee syndicat ba par nag ay jongante dañoo war a dem ci élection de représentativité ñu seet ku nekk looy peese buñ ko seetee ñetti syndicat yu raw. ñoom rek ñooy dem négociation ñooy dem si waxtaan ñooy euh, ñooy am euh, droit ne du ñuy dem grève ñoom rek ñooy am droit bi ñeneen ñi du ñuy respecter loi internationale danañ doon syndicat mais dootuñ fekk négociation dootuñ toog di mbel-mbeli mouvement syndical di lu yoon tëral waaye bëriwaay gi mën a indi ay gàllankoor xoolaat doxin yi doon tey lu war ndax ñu gën a mën a taxawal école bi ak enseignants yi Euh, Bintu Loum lu ñeel tamit poste permanent bu syndicat léeg-léeg dañ ciy gis ay euh, jafe-jafe ñenn nag euh, jàpp ni lu soxal poste permanent boobee nekkul moom mooy faral di indi jafe-jafe yooyu ndax ki nga xamante ni permanent la dafay def liggéey bu am solo liggéey bu metti tamit la te booy xool lañu ñu koy fay jaru ko la nga xamante ne nag moom la ko nguur gi jox ab subvention donc la ñu jàpp ni moom la ci syndicat bi mu di Gaye Youssou permanence syndicale mooy kiy liggéey lépp loo xam ni mooy doxal kuréel gi nga xam ne moo ko ëmb. mu nekk loo xam ni dafay aju nga daal di am xam-xam gu ko matale bu dee nag ñu bëri dañuy riir ngir daal di koy jot ay njëriñam taxul mu bari lool. liggéey ci syndicat bi euh, amul yeneen yenn contraintes maanaam xëy par exemple xëy huit heures pile. Euh, mais am na am na aussi d'autres côtés benn contrainte parce que. sa liggéey bi mais bu fekkee du ay huit heures ngay xëy mun nga liggéey ba ay vingt heures vingt une heures. donc dafa mel ni xaalis bi nga xamee ni état bi waroon na ko jox syndicat yi parce que syndicat yi tamit état am na lu mu waraloon ñoom mais xëj na bu la comme joxu leen ko waaye comme mi ngi fay nit ñi nga xamee ni xëj na euh, liggéeyatu lu ñu nguur gi mais ñu ngi liggéeyal syndicat bi dafay mel ni rek aussi loo xamee ne gafaga buy dolleeku ci. keesu syndicat yi. sëñ bi Guèye moom nag atum 2005 ba léegi lii lay liggéey ci confédération des syndicats autonomes waaye nag boobaak léegi vacances amu ko congé moom xelam sax xalaatu ko. ñun xamuñu weekend xamuñu samedi xamuñu dimanche ñun guddeeg bëccëg daanaka mooy suñu repère temporel ndax da ngay xëy suba euh, war a rencontrer ay liggéeykat yoo xamee ni secteur yi ñu nekk mënuñu libéré wu ci biir semaine bi. ñooñu mënoo dajeek ñoom lu dul samedi wala dimanche. tu nga nekk euh, permanent def naa ne xuloo man mosuma dégg xuloo am ngir euh, affaire permanent ndax euh, instant syndicat yi. ñooy tranché question boobu. coow yi nga xam ne nag mooy judd ci biir syndicat yi ba indi xaajaloo suñu gars yi ne kat du benn yoon post permanent yooyu moo ko jur waaye ci leneen lay jóge non du loolu. sa leneen moo indi loolu mais du du vraiment affaire permanence. ni ñu ko waxee ci ponk xibaar yi convergence des non voyants di nit ñi nga xamante ni seen bët def muuru ñoom nag mer ba futt la ñu def ndax dañu jàpp ni njiitu jëwriñ yi daal boolewu leen benn yoon ci déclaration de politique euh, général la leen metti tamit wax nañu ko muy ñàkkum xëy bi ci ñoom euh, ñi nga xamante ne ay tout tànk la ñu seen bët muuru ñooñu amuñu euh, njàng maanaam seen njàng dafay tàggatémb ak yeneen jafe-jafe yoo xamante ne tey jii wax nañu ko bi ñuy amal seen ñaareelu congrès Ndeye si ñaareelu congrès ordinaire bu convergence des aveugles waylaago yi di ci wax li leen yitteel ñàkkum xëy gi ne sonal na leen lool. liggéey bi kay amul liggéey moom amul bi nga xamee ni tëraloon nañu fi benn affaire nga xam ni dañoo waxoon ni dañuy jël ci handicapé 15 pour cent ñun bi ñu defee suñu calcul yëpp silmaxa yi bi ñu su bi ñu contrôlé silmaxa yi bokkuñ ci donc dañoo ñoo xaw a beddi. depuis bi président de la toogee ak léegi ñu ngi koy bind audience pour leeral ko mbirum mbirum silmaxa mais du am sax tontu. njàngum xale waaye laago yi itam nee nañ bokk na ci li leen yitteel. dañoo bëgg yéen ni ngeen di gisee di jàng ñun tam ñu koy jàngee mais benn école képp la Sénégal am boo xam ni du état sax moo ko def mais silmaxe yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoo yalwaani woon ci pays yi am ko donc lycée yi nga xam ne kon moom moom la état bi di di di demoo maa ngi wax ni Sénégal silmaxa yi bokkuñ ci loolu lu sax te ñuy ay sénégalais comme ñoom juddoo fi comme ñoom. yaroo fi comme ñoom loolu kon loolu du yoon. mu ngi ñaawlu itam li nga xam ne premier ministre bi boolewu leen ci discours de politique générale am bi. tudd ñu nag xam naa dafa juub nag wa ilaa xelam te du ma ko jàppee parce que nit du mat te wax ak treize millions sénégalais des fois mën ngaa fàtte dara te jàpp naa ni incha allahu taala li ko war dina ko def ci ñun. waylaago yi fas yéene xeex ngir am nekkin bu jaar yoon ci dëkk bi. ndax nee nañ ci lañ bokk kon dañ leen a war a boole ci décision yépp li ñu war a jël. màggal bu daaru xuddoos euh, amal nañu ko màggal daaru xuddoos nag di màggal bis bi nga xamante ne euh, ci la Serigne Touba wujjee boromam màggal boobu nag def nañu ko ci jàmm ak salaam waaye la ñu doon euh, xalaat daal mujj na yemb muy nag xeex jàngoroy Ebola ci loole nag préfet diwaan ba wax na ni jël nañ matuwaay ci war ngir nag jàngoroy Ebola bi daal ñu gën cee mën a fegu ñu teewlu makaan mbeng ci micro Mohamed Diop. Eh, tey mën nañu wax ni ci wàllu wér-gu-yaram jël nañ ci ay matuwaay yoo xam ni eh, fi mu toll ñi ngi koy doxal ndax laajoon nañu ñetti poste avancé ak ñetti ambulance service yi jël nañu ay matuwaay yépp ba nga xam ni post yooyu fii ab diir dina taxaw waaye ren dañu ni eh, il faut que ñu ñaaxaat population yi ci wàllu feebar boobu nga xam ni war nañ jël seen ay kéemtalaayu kàttan pour moytu ko ci wàllu boobu nag district sanitaire de Touba dana ci lëkkaloo ak organisation communautaire de base yi waaye tamit ak daayira yi et ñi ngi xaar nag matériel boo xam ni aussi dana ñëw ci wàllu eau de javel ci wàllu lave-mains bouilloire ak lépp li nga xam dafa jëm ci wàllu set setal gi ñu yokk ko bu baax waaye waxtaan ceeg population yi bi nga xam ni ci penc yi ci kër yu mag yëpp fu ne dinañ ay raxasukaay ak ay produits yoo xam ni nit ñi dinañ ko mën a jëfandikoo pour wàññi moytu li nga xam ni moo jublu ci feebar boobu. nga préfet bu Daaru Xuddoos bis bi ñu jagleel mbaax wala sax laa biir tey jii lañu koy màggal ñu jagleel ko nag àdduna wërngal këpp fiit ñu def fi ab taxaw seetlu mbaax wala laaw biir dañu gis ni nag lu ñu fonkoon la waaye dafa mel ni nag jikko ji dafay euh, dellu gannaaw li ko waral nag bokk na euh, ci coppite yi nga xamante ne ni am na ci nit ñi ak nu ñu doxalee ci seen comportement Fatou Bintou Conté Aline Diagne laabiir mu doon lu bokk ci suñu dundin ñu daan ko nemmeeku lu bari ci nit ñi. baax ni nga am kañ day fekk nga nàmp ko juddu si du doon doxalin ndax mi ngi am ba tey ci suñu biir. am na ñoo xam ne ngi taxaw temm ci nit ñi gis naa ay nit ñoo xam ne. benn frère am na ci kenn koo xam ne frère am moo ma ci boppam bu ma def confidence ni ma gis nga kii wala moo kontaan rek nit ñi su nekk problème moom rek laa gis kuy faj ba soxla nit di kontaan day bëgg bay jooy dimbaliwaat dañuy dimbaliwaat ndax benn si man man mii damaa yor feebar boo xam ne ay nit ñoo may dimbali ndax aw ma xëyuma gontuma liggéeyuma maa ngi toog suñu kër maax sama yaay waaye nit ñu baax ñi ñoo may dimbali ma faju ba fi ma nekk ne alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu fekkee sax dañoo seetlu ñu wàññiku na bu baax ci jamono ji ñu nekk. ñi am laawuñ biir ba mën a dimbali ñi amul te ñi amul ñëw leen doole ba mënut ñoo dem kon mbaax fu muy amee ku lay jox dara day bëgg nga di ko wax ci rajo ko dégg. day joxe ca ndey joor bi ca ba mu sax càmb bi gis ko léegi nag ndey joor boo joxe yaa ngi koy joxe ca marché ba mbaax mu mën a nekk. tey nag ñuy màggal bésub mbaax ci àddina wërngal képp muy bés boo xam ni war nga si mën a def wala fàttaliku ci lu baax loo xam ne mësoon nga ko def ci sa biir dundin na Euh, Fatou Bintou Konté ndox euh, fa mu doon taa ba tey boo fa demee fekk fa tepp tepp ba nga ni am euh, la ñuy tàbbe ci xibaaru biti réew wax ci jàngoro yi Ebola jàngoro yi Ebola nag boo sàgganul def giraawaal yi ca réew ma Mali ndax ñi nga xamante ni ña ngi leen di surveiller di njoxt ni ñoom jàngoro yi Ebola dañ leen a bàyyi di leen sax daw bañ leen a faj loole nag ba benn infirmier daal di faatu ci clinique Pasteur ba nekk foofee ca Bamako moom nag infirmier boobe di fajkat ba nga jële woon jàngoro ja eh, ci ab doomi Guinée boo xamante ne nii moo doon fajoo ci clinique boobee doomi Guinée boobee faatu moom it eh, gannaaw bi mu am jàngoro bi ba mujj ñàkk bakkanam eh, ci talaata ji ñoom nag ña nga leen def isolement muy nag ay médecins yu nekk foofe waaye tamit ay soldats yoo xamante ne nii ci soldat mbootaayu xeex mbootaayu xeet yi lañu te ñu nekk foofee ca yi di xeex ñoom nag dañoo amoon ay gaañu gaañu ñu indi leen ci clinique boobee ñëpp la ñu daal di def en isolement waaye nag dafa mel ni dañ leen di daw di leen beddi ndax ragal leen a faj Euh, ragal jëlee jàngoro ja foofee li soxal jàngoroy Ebola ba tey euh, organisation médecins sans frontières ñoom nag tey ci alxames ji dinañ fas yéene def li ñu naan essayer essayer nag jëmale ko nag ci ay vaccin yoo xamante ne nii li ko tax a jug moom mooy xeex ya Ebola loole nag dinañ ko def ci ñeent ñetti centre ca gine lay doon ak ca Libéria loole nag ñu njoxti ni daal euh, résultat yi mën naa baax ba ñu xeex jàngoroy Ebola ji nga xamante ni nii ñi ci jot a doomu aadama ëpp yegsi nañu ci dossier tey jii ni ma ko waxee woon nag ñi ngi ko jagleel laat jàngoro yi ñu duppee eh, énurésie buñ ko déggee nag muy eh, mag ñi nga xamante ni dañuy tuur ndox eh, ci kaw lal te duñu ko tey jàngoro joo xamante ne nag ñi mu dal léeg-léeg dañuy am ay jafe-jafe ci seen diggante ak nit ñi waaye tamit ay jafe-jafe ci wàllu wér-gi-yaram dañ ciy ànd ak Mody Gueye baat bi tubaab mu ngi koy wooy énurésie ci wolof maanaam saw ci lal guddi yi am na ñoo xam ne dëkkoon naa ñu ay kooku grand la da doon sawlal. am na ah. da gis ñu la koy jàmbat man saa am ku ñëw wax ma ko su nekkee nag dafa dem ba nekk mag xamal ne carrément li feebar la si moom. gis-gis xalaat yi daal di ci wutee bu ñenn ne kat ci yar bu bon la ñeneen kat dafa nekk mbir yoo xam ni ay rab da koy faral di waral. bu dee si wolof yi bu fekkee dafa dem ba nekk mag wala mu nekk xale di ko def ñoom dañuy gaafal dañuy wax ni dafa ame faru rab. jeeg ñoo xamante ne dañu feebare xaleel ba nekk mag ba fi ma toog nii tey am na si koo xamante ne am nay sët te mi ngi di saw laa waaye loolu fu ne fajal nañ ko ko faj bu dul faju junne fajal nañ ko ko te mënul wér parce que boo nekkee xale di di ko tàmm ko soo demee ba nekk mag te fajoo ko tamit moo kon ne rek waaye ñu seen xam-xam màcc ci fànn googu nee nañ kat ab feebar rek la comme yeneen feebar yi te li koy jur lii la euh, li koy jur mooy processus de maturation bi bi nga xamante ni mooy permettre sa paftan ak sa cerveau ñu mën a jokkoo euh, ba déggoo euh, processus boobu chez certains dafay xaw a yéex tuuti pour ñu am acquisition yi. lu ci mënta am gàllankoor gu mag lay jur ci li nga xam ne moo di société bi. dafa nekk nag pathologie boo xamante ni dina ko indil jafe-jafe. socialement parlant parce que xale bi bu waree dem vacances wala bu waree dem euh, ci biir ay nawleen. ci wàllum këram docteur comme li fi maam yi bàyyi woon faj gi moom lu leer la. bu njëkk bi mooy bi nga xamante ne dina réguler hormones yi de de sorte ko guddi gi li nga xamante ni rein yi da koy defar ci saw dina mën a wàññeeku beneen bi ci topp mooy euh, faj bi nga euh, doom yi nga xamante ni dina permettre pastan bi mu mën a calme ci guddi gi ba du contracté wu contraction yooyu di indi saw te du ko yëg. am na ñoo xam ne dañuy dem ba nekk si néegu sëy di saw mais ñaare bu ñëwee fii yàlla daf may dimbali ma faj leen ñu beneen bi ci topp bien sûr mooy jéem a accompagner xale bi psychologiquement pour jox ko assez de confiance assez d'autonomie pour mu mun a gérer sommeil am euh, gérer autonomie am ba su safee saw guddi gi dina jóg mën a dem saw yi. teg fële yenn xalaat yu ñaaw yi te itam dem seeti ñi nga xam ne ay spécialistes lañ moo di woote gi ñu def jëmale ci askanu Sénégal ndax énurésie wala saw ci lal. nekk na loo xam ni mun naa jural nit ki ay gàllankoor ci li nga xam ne moo di néegu sëyam xibaaru tàggat yaram yi football lañu koy doore ak Qatar mi ne noppi na ngir dalal Coupe d'Afrique de Nations loole nag ci kaw kaaf sàkk ko ndax Qatar moomee sax fan yëpp mi ngi doon weddi euh, ni lu ñu ko waxaloon ci ëttu yéenekaay yu bari ndax ne woon dañu ne woon Qatar noppi na ngir dalal kaan euh, mu weddi woon ko waaye nag tey jii daad nay leeral euh, lu ni mel jaarale ko ci ki nga xamante ni rek moom mooy Cheikh Hamad benn xalifa Al Thani moo xamle lu mel moom mooy nga xamante ni moom mooy njiital bu bu euh, Qatar. Euh, lu ñeel ba tey euh, Coupe d'Afrique des Nations ku ne xam na ni nag réew Maroc moom daf ci daal di rocci woon loxoom ba mu set wecc ndax ragal jàngoro ya Ebola waaye nag réew Maroc boobee tey jii am na ay daan yu ko ci fekk bokk na ci nag équipe bi nga xamante ni dañu ko disqualifié taskatu xabaar bi di Abdoulaye Thiam ne nag loolee lu jaadu la Maroc moom mën na mënuñoo xaar si moom sax ay daan yeneen yu gën a diis Mamadou Ndiaye. Coupe d'Afrique mi ngi wër dëkk bu ko war a dalal ñaari weer rek des ñu tàmbale bile compétition gannaaw ba Maroc gantalee ndax Ebola mi lëmbee Afrique sowu jant. royaume chérifien bi mi ngi xaar ay daanu kaf ci ndoddam. Ah, li Maroc def nii dafa jar ñu teg ko ay sanctions yu dëgër ëllëg ci biir benn dëkk pour une raison ou pour une autre même sur le plan sanitaire parce que c'est encore contestable euh, doo yeewu benn jour parce que euh, kaaf bu bàyyee lii dem. ah defe naa ñu bëri dinañ anguuf réew ci brèche boobu il faut que ñu sanctionner Maroc euh, sanction yu yu yu yu dëgër pour yeneen dëkk yi ëllëg ci biir lii bañ ñu dal. dàq bi la compétition xel xalaatu ko dina dem sax ba yàq deru footballu Afrique ni ko journaliste bi xamle. ala kulli alin dinañ ko organiser. coupe d'Afrique mooy compétition bu gën a rëy ci sunu football européens yi am nañ seen coupe d'Europe mondial bii moom coupe du monde lañ am asiatique yi am nañ seen coupe. Euh, Amérique la Amérique du Sud aussi ñoom tamit am nañu seen ay trophées ñun si lii lii moo tax ñuy tiitaru mooy Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique football mi ngi war a am ci weeru janvier ak février ci atum 2015 waa kaf ñi ngi xamle ni am na ay réew yu taxaw bëgg dalal bi lay xew-xew. li ci coupe d'Afrique boobee sax xam ngeen ne suñu gaynde yi ña nga ca Paris di ah, tàggatu ñi nag di seen supporter ñëwoon fa di leen seetaan rafetlu nañ bu baax a baax tàggatu boobee tey am yaakaar nag ci gaynde yi di leen soññu ñu bàyyi xel bu baax a baax ci jeu bi waaye tamit nañu bàyyi xel ah, ci temps bi ndax lu ne ah, mën naa xew match Sénégal Égypte ñi ngi ko jàppam dibeer bi ñu dëgmal gaaw bi ñu dëgmal sax si lañ ko fas yéenee amal dañuy dem ba yi fekki fa Mame ak Hamza Diallo. Sénégalais ci njëlbeenu match bi nga xam ne Sénégal war na ko jongante ak Égypte ci wàllu potentiel ñaari équipe yi demuñu sax bay bokk. match bu solo la dañuy jouer contre Égypte et si sama xalaat Sénégal mën na am résultat bu baax euh, Égypte bu ñu fa demee résultat bi nuñ koy amee gëm suñu bopp contre jouer jouer au ballon dawal bal bi parce que égyptiens yi ñoom côté boobu nañ leen gën a mën a xamee et Sénégal ak joueur yu mu yor yaakaar naa ni buñ gëmee seen bopp teg bal bi football. Euh, mën nañ rivaliser ak égyptiens yi. waaw attaque bi instant yii bu xoolee par exemple récemment Diafra Sakho ñëw na il est en pleine forme il a été élu meilleur joueur euh, euh, première ligue mois mois d' man vu la du moment je pense que moom instant yii war nañ ko mën a jox chance am à défaut mën nañ miser tamit comme Papis même s' il est en manque de confiance mën nañ miser si moom parce que am na expérience affaire yooyu mais en tout match bi daal foog ñu dugal xam ne war nañ ko améliorer ci wàllu jeu bi ak gestion ñu bañ a répété erreur yi ñu defoon contre Tunisie parce que gis nañ ne dominé woon nañ match bi trop mais finalement mujj ñu gagné quoi dernier moment ils ont craqué affaire yooyu loolu nañ ko éviter quoi. Euh, attaquant yu mag yëpp boo leen déggee mooy ñi nga xamante ne yu dugal bi bon ñun aussi c' est vrai que c' est côté boobu dañ ci am ay quelques ay quelques difficultés on rate beaucoup d' occasions di concrétiser bon ça va libérer voilà l' équipe quoi dinañu soulager soulager supporters yi voilà d' autant plus que également dañuy soulager seen défenseur. seen gardien wala gën leen galvaniser. supporters yi d'accord nañ ni défense bi baax na stabilité ci milieu bi mu ngi yegg si waaye nag li des mooy di concrétiser occasion yi ñoom nag ñuy yaakaar ni samedi seeni attaquant dinañu taal caax yi. Mame Fatou Ndoye lu jëm ci suñu football gis nañu nag agent ya nekk foofee ca tugal ñoom nag euh, ñi ngi gën di bàyyi gët ak xel ñi nga xamante ni ñoom ñooy doomi Sénégal di ay footballeur li ko waral nag bokk na ci jéego yi nga xamante ni ñi ngi koy def jàpp nañ ci Cheikhou Kouyaté ak Pape Ndiaye yi nga ñi nga xamante ni sélectionné nañ leen euh, ci euh, sélection équipe A bi loole nag mooy muy lu am solo ndax nee nañ li ko yombal bokk na ci Aliou Cissé ak Karim Sega Diouf ki ji def ab seetlu nag di Moustapha Camara moom conseiller tey la ci wàllu yoon ñu teewloo ak Mame Fatou Ndoye décembre 2011 quand Aliou Cissé a pris euh, l'équipe olympique. booy xool depuis ba Aliou Cissé jëlee olympique yi ba léegi am na liggéey bu am solo buñ ci def ci boobu ba léegi gis nañu olympique yi intégré nañ équipe A bi di def ay performances yu baax. booy xool nag joueurs sénégalais yi nekk tugal bari nañu te am na si ñu bëri ñoo xamante ni ay xale lañ te xarañ bu baax moo tax agent yi dañu leen di jege. pour euh, pour euh, euh pour les mbokk yi laata ñuy euh, tàggatoo ñu ànd yër xetu yéenekaay yu njëkk yi ak euh, borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ak ruuxu ci biirum soow Macky Sall ko ëpp yëngu-yëngu jamono ji fi mu tollu tembe moom la lion kii door yaram wi dafa tàng jër yëral xët u njëkk observateur Macky la daggate na douane beeg impôt et domaine yéen kaay bi ñu démb ca conseil des ministres ci la jël dogalub Elimane Ñing ma jiite woon douane mu jëlee ko fa jël douane jox ko Pape Ousmane Gueye Seynabou Niang Thiam ma jiite woon impôt domaine mu jëlee ko fa jël yëf ya jox Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñoom ñaar ñooñee di njiital douane lu yeeseek njiital impôt et domaine yi ku leen bëgg xam ci xët u njëkk observateur anki dina kay nañu Macky Sall daa yore jaaseem namm ko ba mu ñëw di dagg ay bopp Macky Sall daggkatu bopp bopp ba mu njëkk dagg yéen kay bi nañu moo di bopp Aliou Ndao procureur spécial jiital cré yi ba mu ca noppee la dagg démb bopp Seyna bu ñang càam ma jiite woon impôt domaine daggaale bopp Eliman ñing ma jiite woon douane le témoin nañu douane Pape Ousmane Gueye mooy doxal impôt domaine moom kii di Ahmed Cheikh Tidiane Ba la ñu bàyyil toogu ga Macky def loolee démb ca conseil des noppi nag bàyyi leen fa jël ab yong wutali Australie la kay xëy ñu xamal li jële Eliman Ñing ca douane ak Seynabou Niang Thiam ca impôt et domaine beneen domaine bu yéene yi xëye tey moo di giseem njiitu réew mi Macky Sall ak Sidi Lamine Niass bi woon démb enquête di laaj ndax Sidi Lamine Niass du daa bëgg a wàcc bu noppi tiim ko di lekkaat moom Sidi Lamine Sall astafirullah Sidi Lamine Niass populaire nañu ba mu gisee ak Macky Sall démb palais de la République bu noppi ba mu génnee dafa far bëggoon a ab médiateur ne léegi mooy kiy dox tànki jàmm ci diggante nguur gi ak ku jege jéego yi mu doon tekk ngir ak réeroo bañ a am ci diggante nguur geeg kujje gi moom Sidi Lamine Niass da koy wéyal la si ne kay nañu monge Macky ak Sidi Lamine Niass seenu photo dang ci xët u njëkk journal bi ku ca nekk ci ñoom di ree ba say déggeej feeñ yéen a kay bi dañu lii démb la woon Macky Sall ak la mu jàmbat Sidi Lamine Niass journal bi dellu si waat ci Sidi Lamine Niass ak la mu ko tontu moom Sidi Lamine Niass moo di say média dañuy fësal li ngay def suñu yos dañu koy fiñ ci waa këram a xam journal bi dem gis Sidi Lamine Niass demoon démb ca palais de république gisa ji fa njiitu réew mi réew mi quotidien gis ca doxalinu Sidi Lamine Niass lu xuskat bu perte bay fen di teerloo journal bi ñu gannaaw mbette li nga xam ne askanu Sénégal amoon nañu ñu geneen mbetteel ba ñu yégée ne Sidi Lamine Niass dem na ca palais ba gisee ak Macky Sall bu noppi nag moom Sidi Lamine Niass ba mu génnee la mu wax moo di amul genn mbañeel gu mas a am sama diggante ak président a Diop mi xëy ay révélation mu di mbuuta ci dàq gi ñu dàq Aliou Ndao ci bopp CREI yi yéen a kaay bi nañu juróom-ñetti nit yi mu bëggoon woolu dugal leen ci mbirum traque des biens mal acquis mooy li ko sànq moom Aliou Ndao ak lu mu wax kii di directeur police judiciaire moo di ñooñee ma la tuddal dama leen bëgg a gis sama bureau talaata bii di ñëw na leen fa onze heures fekk bi nañu ku ne jàpp na ca bëgg a wax ak moom ngir mu dellu ci gannaaw waaye fa mu mujj moo di fay ay téléphone ba ko Macky Sall woowee ci benn ci appartement privé yi ci réew mi di wax ak moom la ko Aliou Ndao moo di da ma sant ab liggéey bàyyi leen ca ma dem ca ba jeex moo taxit tëbal nañu ko Sud du Quotidien ñu dàq gi ñu dàq Aliou Ndao waa Parti dañu cee bekk waaye nguur gi moom joxuñu ko solo grand place di laaj ndax loolee du yoon wu ñu mën a aw ngir génne Karim Wade ci kaso bi Alioune Badara Cissé di awkab Karim Wade journal bi di laaj ndax duñu ko yóbbu ci ministère de la justice en tout cas grand place nee nañu démb neewoon nañu ay vingt heures dem ca palais ba waaye dafa ñu nekk ci wetu njiitu réew ma bu seeni pexe jooyee Alioune Badara Cissé du fa baaxle Abdoulaye Wade suba lay baa ngi ci xat mu njëkku parti démocratique Sénégal jamono ji jàttu nañu ne soccet kenn ca gaay parti ba di Babacar Gaye mi amee kàddu ga ni ci populaire suñu marché 21 bi bu ñu xoolee ba defuñu ko bu boobaa nañu tas PDS PAD di port autonome bu Ndakaaru njiit la di Cheikh Kanté libération nañu ca yoon la jëm ak Mamadou Lamine Diallo bu tekki Cheikh Kanté moo ko plainte ndax li Mamadou Lamine Diallo ne woon ca élection locale yi Cheikh Kanté da doon jàppale liste pirate bi bindu loolee a kaay bi di benn keneen ku xëy tontu ay bañam moo di Mbagnick Diop Souche bi l'Observateur corridor ak coow la ci am ak la ñuy waxal ne Mbagnick Diop wutukaayu xaalis la ko def Mbagnick Diop li mu wax ci observateur moo di ñuy wax loolee soxore leen jàpp ne bu ñu sañoon mën ko ñi ko mën dëgg ñoo ngi koy def maa nga ca làmbu ak sunu làmb mi ñu xëy xamal ne ginnaaw combat Eumeu Sène ak Triple Less doomi dubales mu di Balla Gaye de taxaw na ñi ngi waaj a taxawalaat beneen combat mu di bopp Ama Baldé ak Gouye Gui ñaari diir bi yu nar a tàng jër ci diggante Pikine ak Guédiawaye ku mën sa morom daan groupe Ramdan na di orchestre Thione Seck bi observateur nañu batteur ba ca nekk di Fallou Ndiaye ma nga ca loxo yoon journal bi nañu la ko fa dugal moo di daayoor otoom di ca daw ay xël rombu alkaati alkaati bi arrêté ko waa ji bañ a taxaw romb ko fa ak san ca la ko waaj ji ba jàpp ko jël yóbbu ca kaso ba ceeb bu dijj dëgg nag mi ngi noonu ñu di la jaajëfal Mamadou Mohamed Ndiaye yéen ñi jàppoon ci xibaar yi ak ñi féete ci machine bi euh, cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dina ñëwaat 19h30 ak 20h ak yeneen